situation bi na mu fa demee man li ma mën a wax moom laa mën a wax la ma doon wax Nioro moom laay wax assemblée parce que Nioro président conseil départemental la président de la république ba mu bëggee réew mi 2009 2008 dañ doon ànd ak moom commune commune bu ne département bu ne mu am fa responsable ñuy ànd ak moom di joxe di ànd ak moom di joxe ba yàlla def ñu gañe ñu xam mbedd yi xam nit ñi xam kër yi xam ñëpp kon su fekkee ne dañoo dem ba gañe suñ amee ndimbal di ko jox population bi ñu bañ koo jox maire yi wala ñu bañ koo jox président conseil départemental yi di ko jox préfet yi ak sous préfet yi wala gouverneur ñoom ñu di leen joxeel ba ñu ko waxee dama leen ne man duma ci bokk parce que man mënu ma gën a xam gouverneur fi ma dëkk gën a xam préfet fi ma dëkk gën a xam sous préfet fi ma dëkk ba pare am ndimbal bu may war a jox samay mbokk wëlbatiku di ko di leen ko jox ñoom xamuñ fu ñu ko yóbbu duma ko def maa koy joxeel sama bopp man bigse bi nga xam ne maa ko seere dëgg la gouvernement bi ñoo ko moom ñoo ko joxe mais comme man maa seere bigse bi sama bigse maa koy joxeel sama bopp bokkuma ci responsable politique yi nga xam ne dañuy am dara dem di neexal préfet yi wala ñuy neexal gouverneur yi du ko def mën naa leen a neexal nag mën naa leen a jàppale parce que ñun dañu ñu boole ak ñoom ñu ànd ak ñoom pour ñu liggéey ñoom dañoo nekk légalité ci ñun nekk contrôle ci ñun parce que ñun tey mënuma jëlee càmmoñ dem ndeyjoor dégguma tubaab du wax tubaab mënuma bind tubaab te réew mi sartay tubaab moo koy doxal il faut ñun éli ko yi nga xam ne ñoo jiite population bi il faut ñu jaxasoo ak administration bi ndax bi ñi nga xam ne ñu ngi créé acte trois bi di waaja a di conseil régional dañ noon dañ fiy jëlee gouverneur yi ak sous-préfet yi ndax gisuñ seen intérêt bu am solo ci population bi mais ñu seetaan ne dañ leen fee war a bàyyi pour ñoom ñu mën ñoo jàppale kon man du ma nekk maire ci commune ñu wateel ma ma nekk maire ca commune ba su préfet ñëw jiite ma wala préfet ba ñëw jiite ma d'accord naa mën naa ko nangu de waaye du doon suma patron parce que du ma ko nangu ndax man dañ maa wateel moom dañ ko fa affecté man du ma nekk ci région gouverneur mel ni président de la république ci man parce que dañ naan gouverneur mooy président de la république ca région ba may ña koy wax man loolu dama ko compte parce que gouverneur mënu ñoo am président de la république ci Ndakaaru am gouverneur Kaolack président de la République Dakar am président de la République Kaolack du ma ko nangu li ñu xam gouverneur ña mu jiite mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci administration bi ñoo ñu la gouverneur jiite waaye ñi nga xam ne ba ñuy falu fekkee fekkeewul bu ñu falu follee ko gouverneur du fekkee gouverneur falu leen folliwu leen kon ñun gouverneur man gouverneur du suma président man waaw kilifa la nag dama koy jox cër comme ñëpp mais sécurité réew mi ak baatu réew mi nekk président kenn ko yor mooy président la république keneen ku ci topp ministre ngay doon ministre de l'intérieur sécurité réew mi lañ ko dénk mais dénkuñ ko réew mi moomu réew mi du président de la république ministre la ak bu mu munti doon nag Macky Sall kese mooy président de la république kon nag bu ñëwee jaxasoo ñun ñun dañoo war a teg ci yoon muy muy muy justice muy intérieur muy euh, force armée ñun lañu war a seet bépp koo xam ne nit ñi jiital nañ la fal la nga teg réew mi ci yoon lañ la jox nga doxal teg ko ci yoon ñu bàyyi la nga dem ci yoon suñ la ko dénkee tegoo ko ci yoon ñu jàpp la yóbbu la ci yoon jàpp la pour ëllëg dootoo ko ñemee def nga xam ne da ngaa sàcc wala da ngaa wor ñoom dañoo nekk légalité ak contrôle dégg nga suñ diggante ak ñoom mais nekkuñ fi pour ñoom ñu nekk suñ président de la république parce que man du ma ko nangu te duma ko mos a nangu voilà loolu moo xew ñoor la ma amoon yëpp séddale naa ko ah lañ fa amoon barki démb ñoom commencé nañ di ko séddale am na ñu am am na ñu amul séddale nag ku ne xam na ne du daj mais man nañ ko commencé séddale balaa d'accord parce que dañ waxoon ne ñi ñu doon jox bourse rek la ñuy jox mais boobu ba ñuy jox bourse booba mbas mi amul kon mbas su amee ñi ci kaw ba ci suuf ñëpp a yem amul kenn ku soxlawul ndimbal ndax képp ku fi dimbale nit ñi rek dañ laay dimbale ñiy wax naa nit ñi dañoo néew doole nañ leen dimbale ñi seen loxo jotu seen gannaaw man loolu ànduma ci parce que gisuma kenn ku tane kenn ku fi yor kenn amul waaye kenn ku bañ dimbal amul tey ku fi dem ci sa kër sëriñ si sooy dem yaay yóbbu ndimbal nga faa yóbbu gouvernement bi dañ leen di dimbale ñuy dimbale nit ñi ñun dañuy dimbale ñuy dimbale nit ñi kon dimbal booy def defal ngir yàlla waaye bul ne kii dafa néew doole parce que koo fi ne dafa néew doole yoroo ko koo fi xeeb rek yàllaa ko yor gisagoo ko fi yor ay milliards yore building ba taqaloog borom kër goo xam ne sàkket la yor nga yore ko tuuti rek nga ko mën a mosal ci li nga yor mais munoo ko yor kon dimbalante munu fa ñàkk ku bañ dimbal amut réew mi dimbalante il faut mu am fi kon ba ñuy séddale dañ waroon a wax ne buntu kër gu ne ak koo manti doon dañ laa war a sédd ndax tey ki nga xam ne daay jël alalam di ko joxe boo ko dimbalee dimbale nga ko parce que dafa da nga koy yaatal ndimbalam mais nag borom ña fi nekkoon di doon leen jox bourse booba mbas mi amul dara amul ñoom la ñuy jox te ba nga koy bind bourse ba jaaroo ci sous-préfet kay jaaruloo ci président conseil départemental jaaroo ci responsable yi jaaroo ci maire yi nga jaar ci préfet yi ak borom dëkk yi kale la ñuy bind